diggi penc émission bu bees sur cent limite TV. politique ak lu mu làmboo. actualité ñu jàngat ko ci beneen i anam. ci wàllu mbay mi ña koy doxal càmm gi naka noonu ci wàllu njàng ak it lépp lu laal askan wi. ak ay kanam yu ngeen miin. ci penc bi lañ ko waxtaanee. alxames bu nekk lay doon. 20 lay doon mbokk yi. bu leen ko wutee.